basumo basumo mbare suko nonko abije iba famale dia peuple africain peuple africain c'est dramatique des fois de dire que tous les Sénégalais sont dramatique C'est honteux de dire que les Sénégalais sont intégrés. Et l'idéologie de passif, l'idéologie de passif. C'est-à-dire l'idéologie panafricaniste que Ousmane Sonko nous a jusqu'à nous tous, on était dans le combat avant lui, sincèrement. Bien avant dans le combat avant lui. Mais c'est un porteur de voix qui a porté le combat en une seule idéologie, c'est-à-dire l'africanité, c'est-à-dire le kémite. Mais cette idéologie-là est-elle bien comprise et bien prise par certains membres de PASSEF Je signe je persiste, par certains membres de PASSEF, surtout pour les membres qui sont intégrés. Si c'est cette idéologie, si c'est PASSEF intégré, moi je suis d'accord avec le PASSEF des dialogues en parabole, les dialogues satellitaires, mais dialogue des rats, non, si c'est cette PASSEF-là, non. Le système est très large. Le système est très grandiose. Son co-président, oui, c'est l'homme qu'il faut, mais qu'est-ce qu'il va régler Au niveau monétaire, oui, il peut régler ça parce qu'il connaît le niveau monétaire. Ça, il maîtrise, oui. Ça, il, ça, régler parce que c'est des vendeurs d'argent. Eux, ils que sur l'argent. Donc, ils peuvent gérer l'argent. Et sur les autres domaines. qu'ils vont mettre les hommes qu'il faut ou qu'ils vont nous mettre des hommes primitifs, c'est-à-dire des politiciens. Diriger le Sénégal, c'est bien beau. Mais avoir les hommes qu'il faut, la compétence qu'il faut. Ne pas jouer sur l'intelligence et l'ignorance et l'ignorance et l'innocence de la jeunesse. Non, il ne faut pas jouer sur cette jeunesse. Le Sénégal a plus de valeur que nous tous. Le Sénégal détient plus, que, plus de ressources que nous tous. Le Sénégal était Sénégal avant nous. Le Sénégal sera Sénégal après nous. Le Sénégal Allez suivre mais lives quand on avait enfermé Ousmane Sonko chez lui-même. Je vous avais dit dialogue ci jaww ji mais dialogue ci jaww ji comme je vous l'avais dit Macky est obligé de dialoguer Sonko est obligé d'écouter parce que le Sénégal est plus grand que leur petite personne là qui va sentir mauvais d'ici 5 jours 6 parce que si quelqu'un meurt même pas 5 jours 6 tu sens mauvais donc l'État il faut plus que ça et l'État n'est pas sale l'État n'indispose pas l'État n'a pas des jours de règle négatif si l'État si l'État n'était pas propre Omar Boul Khattab Quand on dit musulman, État, c'est oui, maintenant oui, État c'est l'islam, donc l'État c'est quelque chose de sale. Non, c'est les hommes qui gèrent l'État, c'est les hommes qui doivent gouverner l'État, qui drainent des casseroles sales, mais pas l'État. Et pour changer une administration, il te faut d'abord être capable de choisir tes accompagnants et les hommes qu'il faut. Et je sens que passif Ils sont très bien organisés. Avec des artistes. C'est ça que j'appelle des artistes. C'est les gars qui font dans les plateaux là, qui font les concerts. C'est ça que j'appelle les artistes de passif. Il y a un grand qui m'a dit non boy, cesse de dire passif ça. Nous les leaders, nous sommes en dessous, oui. Mais vous les leaders, vous êtes en dessous. Et vous allez laisser des gens qui n'ont pas la capacité de convaincre ni de comète, ni de faire quelque chose, seulement de nous donner Sonko, Sonko, et puis ils viennent. Tu sais ce qui est dangereux Dans un parti politique où, avant d'aller aux élections, les gens qui ont démarré les élections 2019, ce ne sont pas les mêmes qui sont là en 2024. Votre premier mandat sera celle, celle, comme celle de Macky Sall. Je vous le jure. Je le Sénégal ne sera pas ré réglé ni changé par des dialogues fen buy defar moo gën dëgg buy yàq moo ñu yàqal Sénégal le Sénégal ne changera jamais par des dialogues négatif le Sénégal se doit d'être changé par des hommes de tenue ça on n'y peut rien Il y des hommes qui n'ont rien compris, qui me disent que nos grands, les hommes de tenue ne sont pas, les militaires ne sont pas plus intègres que nos politiciens. Yen, Sénégalais, sachez que tous les pays qui sont développés, ça n'a pas été développé. Il n'y a pas un politicien qui a développé un pays. On y va, il n'y a pas, ça n'existe pas, il n'y a n'existe pas. La France a été maîtrisée canalisé, développé par le fameux général Charles de Gaulle, oui ou non, qui fit un grand putschiste, parce que lui, il avait quitté même son pays pour faire appel à l'insurrection. Donc qui a développé la France Ce ne pas les cartes. L'Angleterre, les Anglais. on été développé par l'armée de Churchill. On y va encore. Les États-Unis on été développé par la guerre de cessation qui a eu combien de morts Donc les militaires toujours. Le Ghana, Joe Rawlins. On y va. Chine, Mao Zedong. On y va. Russie, Union soviétique, Lénine. On y va. Montrez-moi le civil. Le système a fait que ils vous ont fait croire que les civils vont changer les civils. Non, les civils sont les négociateurs, les civils sont les managers, les civils sont les agents marketing du système par rapport aux populations. Les Blancs, ils font de nos présidents leurs agents marketing, mais ce ne sont pas des présidents. Les Macky Sall, Abdoulaye Wade, Abdou Diouf, Senghor, ce ne sont pas des présidents. Même Ouattara n'est pas président. Le civil qui essaie d'être président, on va te péter la Donc là, le système. Le civil qui vous dit et qui vous promet. Cin. bu naree neex bu baxee rek da ngay ajji fa mu jëm. te xam nga la laay bañ. ëllëg am ñenn ñu jóg ne Pastef gauche ma rendi seen ndey ça sera automatique gis nga bu may xeex dara ñu di nekk di jaay naa féq bañ a wax dëgg bi bu dëgg bi jibee ku kooku ma rey sa loolu rek ay suñu cat catu état yëpp loolu gis nga état bés bu demee ba bañ dara ba mujjee ngeen nanguloo ko dara ku ñëwaat ne sa bët a ngi xonk dañuy rey sa romb ci leneen c'est automatique et ça doit être automatique nit nag ki lay jiite moom ngay wóolu ki lay jiite ngay wóolu mer xeex bu ñu yëgoon moo koy fay mer xeex bu ñu yëgoon moo koy fay te fexe nañu ba merlooñu bëgg ñu yóbbuwaat élection waxtaan ak kuñ fi teg ñu ñëwaat ñu ne wooy lan la ñu xeex waa léegi ñun suñuy moor ana suñuy moor ana suñuy détenu politique Sonko dialoguewul xam man Pastef sont incohérents Sonko di dialogué Sonko dialoguewul non Sonko moo ne nañu bàyyi prisonniers yi ba pare moom mu door a génn mais mais man des fois gis nga damay seetaan seen plateau télé yi j'étouffe parce que dama naan ñii ils se foutent de qui au juste yéen vous vous foutez de qui Sonko ne va jamais dialoguer Sonko ne va pas dialoguer ba pare ne prisonniers politiques yi moom moo leen di génne kon qu'est-ce qui se passe nit da ngay cohérent ci wax ñu bëri dañ may woo téléphone wala di ma message Sonko dialogué wul déedéet du ma ko kenn message gars yi gënu leen maa xam ne xew ci biir yéen nit ci jaww ji dialogue fépp Khalifa Sall pour lan muy wax du question Sonko lay dialogué de moom pour lan Bassirou Diomaye fey nekk candidat moo ko tax di wax parce que ce n'était pas prévu Khalifa gis nga man nag du ma far ci lu dul dëgg vous n'avez jamais prévu Sonko xam ngeen ne moment yi Sonko dafa nar ñëw ak sama jarog triangulaire ba gars yi man maa ngi ci lépp Sonko balaa ñu koo tëj balaa moo dugg kaso këram lañ ko doon fekk di waxtaan ñoom ñëpp a ci yam bas prison lañ ko doon fekk di waxtaan mais Sénégal xam nga rek du ñu neex a waxal tant que commencé ñu woon génnee politiciens yi soo waxee duñ la gëm ne ah! am ku ma woo naan ma noo xaw ma ban laay fër ne na noo Sonko day wax wante waxalax moom ci communication bi nekk Sonko mais yéen mais yéen xam nga man lu ma métti Macky Sall mi jiite réew mi moom lépp mën commandé ñëpp ñu xoj ndeyam muy waxtaan ki jiiteegu ñu tëj ko ci kaso bi ñu ne du waxtaan ak kenn ki nangul waxtaan moo andi problème bi nii tay mooy kan Basirou mooy problème mu état Basirou mooy problème mu gouvernement Basirou mooy problème bi te fexe nañu lonki Bassirou dugal pouvoir en cassation bu Ousmane Sonko mooy lan loolu lan lay tekki après xam ngeen ne loolu mënul nekk loolu bu ko Sonko nangoo sax ñun waru na ko nangoo ndax mënul nekk mënul nekk dinañ leen bëgg a gëmloo ne Sonko gën Bassirou ci nan te élection war a am le 25 bii léegi tëb ngeen la vingt de Macky Sall réussir na premier pas am Macky Sall il a mis son premier jalon il l'a réussi oui ça soyons tous d' accord Macky Sall gagné na premier match bi mooy élection du am 25. ma gis ñu ma ne commencé coow li bëri ñu naan noo c' est que bi nag Sonko mën na dellu siwaat pour lan muy dellu siwaat. bu Sonko naree dellu si waat doon nañ jëm élection te Sonko bu mu sax jël risque yooyu nit loo ko bëgg bëgg bëgg bëgg am na fu muy toll moom moo xasa wone ne dootul moom dootul moom on passe on passe on passe on avance Bassirou mooy problème bi ku ci dem ci dialogue assemblée nationale am na lu ñu voté ba pare de bés buñ dof dofloo ba dem ci dialogue bés buñ demee ci dialogue bas bokkatul ndax ndax foog naa ne pare parrainage citoyen dootul compter voté nañ ko assemblée nationale waaw wala déet est-ce que pouvoir en cassation bu Ousmane Sonko bi jàll na jàllul. Macky Sall nee na day woote dialogue le 2 mars on y va na Pastef dem dialogue ngeen xool ndax Bass day bokk. Macky Sall day d' accord ba fin temps ba ne leen yéen ñëpp ñëw leen ba ngeen dialogué ba pare mun leen waaw léegi on applique les lois les lois mooy lan lii la assemblée nationale wax kon léegi kanaax kanay dem Sonko kan lay obligé joxoñ su boobaa ku dul Habib Sy wa ilaa Macky Sall découragé bi mu découragé démissionné bàyyi ñoog suñu réew bu ko neexee de ñëw dialogue yóbbu élection yi ba juillet. xaar ba cappaandaw deux jours des élections bu démissionné reporté waat yokkaat ko ñu jëm ak Amadou Mame Diop yàlla xam. wa ilaa ñu xeex Macky Sall wàcc armée jël réew mi wa ilaa bañ a xeex dem élection ñoom ñu ne prix dix neuf dix candidat France France si boppam mooy génn ne leen man sama candidat gagné ne 52 pour cent ñu génn xeex même pas deux heures de temps ñu ne léegi nungu nañ lépp léegi yéen ñëpp ñàkk ngeen toog leen après dinañ ko réglé ana Gabon nu mu mujjee le Sénégal sera gabonisé. parce que Pastef dañoo jël seen xeex batale ko fin ans ngeen batale xeex bi ce qui est très dangereux fin temps la ñu batale xeex bi di jox ko Union européenne. jox ko ak américain yi te nee naa leen bés bu Ousmane Sonko bës bu ko américain wala système libéré ci loxo Macky Sall mii dina nangu loo xam ne waru ko nangu. Fall bu leen yaakaar ne suñuy dix euros vingt euros yi seen kaasu café Touba yi seen takk bracelet yi mooy jiite réew <laughs> vous n'avez rien compris wala lu ñuy ñëw ci manifeste ñun ñi di ñëw ci manifestation yi. ñun ñooy jiite réew bu fekkoon ñu ñooy jiite réew Macky du xaar ba mu des dix heures de temps mu ne leen élection amatul ndayam te kenn mun si dara kon xam nga ne du looloo jiite réew réew conviction leneen na koy jiite te Sénégal li koy jiite nii tant que fetal yi defaruñ Sénégal Sénégal du jag transition bi ñu war a defaral Ousmane Sonko xam nga mooy lan yéen armée nationale ñëpp commencé nañ leen saaga tey ku ma man su ma yebee armée tax mu yeb ma tey su ma yebee man ku ma yeb armée tax ñu yeb ma armée jël leen seen responsabilité armée jël leen seen responsabilité ay Mali Guinée kii gënuñu leen doon ay militaire benn transition donc moo mun a sauver nguur gi fi toogaat pétrole am na fi gaz am na fi lu com lépp génn exploitation yi day commencé deux mille vingt cinq deux mille wa ilaa ci biir état am na ñoo xam ne sërëxal nañ ci biir gouvernement Macky Sall comme dañoo baaloo fogoon ne duñ dem am na ñoo xam ne sërëxal nañ ñoo xam ne naka la ñuy def ba génne waat leen Sénégal mënul nekk ndax def nañ fi ay njombe ba noppi. état bii di falu nag. foog mu jël ay responsabilités am de yéen militaires yi yéen doo mun sauver Sénégal seule l'armée peut sauver la Sénégal xam naa lu may wax. armée mun jël réew mi reyanteeg armée parallèle bi i Sall créé ak ñoom Anta Diop nag ñoom Moussa Fall ak ñoom ak ñoom sinon ñoom. nguur gu fi mënti falu boo la naree xañ seeni intérêt ñu andil la giitangaas boo xam biir Sénégal Sénégal dinañ la woon ne dëkku pétrole la fekk ne pétrole jàmm la mais nekkul xeex Macky Sall si boppam moo nekk en danger pas Ousmane Sonko actuellement ni Macky Sall si boppam moo toog ba teg boppam ci gat boo xam ne mënu ci génn. moo tax peuple bi yéen ma ne leen woon coow li romb na Ousmane Sonko romb na Macky Sall romb na Khalifa Sall romb na Bassirou Diomaye Faye mais je sens que politiciens comme d'habitude oto bu panne na boo ko poussé bu tàqee bu cuqee deuxième au mu dóor frein point mort day avancé troisième dem fa lañ jëmaat balaa ñu faa yegg nag ñu avertir toog seetaan déglu na ma defoon si élection locale yi municipal laay ñëwaat législative yi toog ceene jàpp not jàpp gàpp surveiller askan wi foog ñu surveiller cin bu naree neex bu baxee nga koy xam pour clôturer amaat na cow luy dib vingt candidats yi normalement comme Karim Wade bokkul am na candidat boo xam ne day tëb ndax moom it nee nañu francaise la xaw ma depuis kañ Rose Wardini xëy na jëloon na nationalité française bu ñu yëgul mais gars yi am nañ ay preuve yu leer ne française la léegi nag xaw ma lan la mën a def ci processus électoral bi xaw ma xaw ma lu mu mën def si processus électoral bi xaw ma mais daal affaire bi ba fa muy mujjee dajale leen yéen ñëpp ku fa am mbokk yónnee ko ku fa am leneen ak leneen yónnee ko ndax ñun à partir du 2 bi à partir du 2 avril Macky Sall dootuñu jiite. yaa ngeen ni dialogue partout nak dialogue kaña yaa ci des mamaay dialogue kaña yi. ñi nga xam ne boolewu ñu leen ci dialogue bi ñoo nekk di woote pour wut pour bokk ci dialogue bi dialogue gu kañe moo des. léegi nag yéen peuple yéen jeunesse éveillé prenez vos responsabilités ñenn ñi leen di layfal da ngeen di xam ne gis nga ku far ku far wax la li la neex te xam nga man lan laay bañ wàccu tey ñëw lekk ku ëllëg moo tax Karim Wade mënutum ko lekkaat sama adduna dootuma ko lekkaat man du ma wàccu di lekk. fi combat bi toll woon nii nag tëddee woon njaaxaanaay moo gënoon fuuf di wax ci ay instance su parti jàmbur tëddee njaaxaanaay rek ndax Sénégal la ñuy xeexal dama teel a aji ne combat bi Sénégal la ñuy faytal bu ko mag Sall reporté ci politique ñu ñàkkaat union nag ak ñun africains yi foog ñu def bloc ndeyam ak africains yi sénégalais ñu ngi naan africains yi ñàkk ñàkki naan ñu caméléon xam nga luy caméléon nu ñu neex la ñuy mel te ñu vert suba ñu bëla Ousmane Sonko le grand panafricaniste say partisan ñoo taxaw biir France say bu ñuul taxaw ñu naan ko jërëjëf allahu akbar osmin falaxe mi rabbin naas man de jërëjëf sëñ Bamba jërëjëf sëñ Moustapha Saliou Mbacké jërëjëf man jomm naa naan tubaab jërëjëf délégué sama combat délégation de pouvoir c'est parce que tu te sens incapable moo tax nga délégué sa combat tubaab c'est l'incapacité de réaliser quelque chose moo tax ngeen délégué seen combat tubaab waaye dëjju nday tubaab ku ko gëm lëfal ndayu tubaab ku ko gëm Macron petit pénis double puce à double doigt double corps injection ragaluma samay wax ba érigé dama koy wax bokkuma ak yéen vision de vie gis tubaab jibile way jërëjëf manas asans mi ndaay mi ne seytaani rajim subhanallah ku jinne jàpp yomb ngaa faj mais ku jàpp jinne kenn mënu la faj je pense que peuple sénégalais ñoo amagul séparation ak tubaab yéen amagul séparation ak tubaab waaye cottu ndey lii waaye lëfal ndey lii Sénégal ñoo amagul séparation ak tubaab non Sénégal Sénégal ndeysaan ñooy tuutal seen bopp ci kanamu tubaab gis nga tey suñu morom africain yi laaj leen dañ ma ne mais papa ma ne ko ma ne leen eh man je suis de la Casamance man bokk ma ndeyam ci lii je de la Casamance man jomm naa ndey di bés bu Mélenchon nekkee président yéen lay njëkk dëgg seen ndey ba ngeen xam ne ba ngeen xam ne bokku leen cottu ndeyam ay intérêt moo ko fa andi woon ndax akbar délégué seen waay waay waay waay waay Ousmane Sonko su fekkee ñii ngay àndal su fekkee lii nga nar jiitee réew mi yéen Sénégal eh France day continuer teg nday tànkam Sénégal katta ndeyu ñëpp su fekkee lii mooy jiite ñoo xam nag lu Guy Marius Sagna wax ak ñoom ñoo xam lu keneen ak keneen wax ak ñoom mais su fekkee lii mooy continuer ku leen ne système bi day def fi jóge day dëgg la fal ndeyam bi bougé gul Sénégal le système est toujours au Sénégal et le système restera au Sénégal jërëjëf sëñ mbamba jërëjëf sëñ Bamba jërëjëf Mame Maodo jërëjëf sëñ Bamba jërëjëf waaye tey tey tey onze mille yaay mi ne seytaane rajim tey dama tiit tey dama tey dama xool passif tey ma ne onze mille yaay mi ne seytaane rajim ça c'est pas le changement le changement n'a pas encore sonné chez nous le changement n'a pas encore sonné chez nous kooku qu'on le veuille ou non le changement n'a pas encore sonné chez nous Ousmane Sonko n'a pas encore ses hommes Ousmane Sonko n'a pas encore les hommes qui l'ont compris sur le terrain Ousmane Sonko n'a pas encore ses hommes sur le terrain Sonko actuellement yow yaa ñuy présenté kuy président mais xoola reculel ba sénégalais yi comprendre boobu boo falo si liggéey day gajof day yomb mais actuellement boo faloo bëgg a tàkkale nit ku ñuul won ko ni nit ku weex gënu la léegi ñu jiiñ la fi lu nekk man rek imaam yaa ngi may commencé jiiñ ne beneen diine laa fay andi te fekk dam leen ne naar gënu leen yéen a gën naar Sonko peuple bi nga nekk comprendre ñu yow li ngay combattre moo tax yàlla buy defar alhamdulilahi rabbil alamin ba la tëjee kaso sax ba génne la ci élection yi ndax sa peuple comprendre gul fi nga nekk déedéet le peuple n'a pas encore compris Ousmane ko léegi désormais nañ leen dem campagne ñu fal Bassirou Diomaye fay ba keroog nag Bassirou ñëw africaniser dëkk bi tuuti Sénégal foog ñu am tuuti africanité Sénégal foog ñu commencé gëm suñu bopp bàyyi pingouintisé bi solo comme tubaab foog na ñëw ak seen tuuti tapaxloo yi. foog ñu bàyyi yooyu foog ñu nekk ñun quoi ñëw dajaloo nga xam ne fii y des africains qui la là pas des afri intégrés non j'ai honte pour mon pays j'ai honte pour mo pays j'ai honte pour mon pays j'ai honte pour mon pays tey tubaab si boppam dañu doon laaj mais qu'est-ce qu'il faut là mais tey ba journaliste tubaab yi si ñun lañ ñëwoon il a fallu que Mélenchon dem fële ñu dem filmer seen ñit doog a ñëwaat mais j'ai honte pour le Sénégal dajaloo Afrique yëpp dajaloo ngeen ne non yéen da ngeen di taxaw sur place manifester les détenus politiques les détenus politiques les détenus politiques cottu ndeyam Sonko tas des gens primitifs complètement vide waay maa ngi doon a comprendre pour la ak yéen ton di tàkk ci kaw gars yi dafa vide dafa vide gars yi dafa vide cottu ndeyam dafa vide non xaju ñoo ko dafa vide Pastef dafa vide dafa vide dafa vide y a du vide y a trop de vide y trop de vide ñëw seen manifestation sax c'est la honte parce que y a trop de vide y a trop de vide la présentation les discours le charisme waaw waaw waaw Sonko wootewul lii Sonko dafa bëggoon fi muy taxaw ñu gis Thomas Sankara taxaw ñu gis Amical Cabral taxaw ñu gis ay Lumumba taxaw mais Sonko fu mu wootee nga gis ay Macron petit pénis double puce taxaw non non non non non c'est pas ça Sonko Non, je regrette. Sénégal, vous n'avez pas encore compris. Là où nous sommes, là où est le combat. Non, c'est pas ce passif-là qui a compris. Non, non, non, vous n'avez pas encore compris. Je regrette. Peuple, la jeunesse, eh, on se draine encore pour un seul but. Nous pas les politiciens. nañ leen songu ndey suñu xeex dëgg ndey Macky le 2 avril bu fi jógewul ñu dëgg ndeyam forcer le but armée jël réew mi ñu régler réew mi c'est mieux non non non ils n'ont pas encore compris